Dia Immense wane na ko que ne Ousmane Sonko moo nekk chef de l'opposition Ousmane Sonko amaana mooy jëmm ji ñu gën a bàyyi xel ci réew mi voilà Ousmane ban yeg yëg ngeen am tey Ousmane Sonko la ñu bëgg bëggul kenn ku du waral li ñoom ñëpp lañ far ñun waa Pastef kese ñu far fajar mu fajar mu ngi noonu mu ngi noonu ñoom Ousmane la ñu faral Ousmane lañu ñu àndal en ku mu dawul sa yaram ndax nit nga wala déet jar na laaj lii ku mu marqué wul ndax nit nga wala déet waaye itam lii ku ne comprendre na lan la. xajuñu fa si diggar góor gi dafa bloqué. fan ngeen bàyyi ko. dañoo jógee benn tali dem si diggar góor gi ci des góor gi dem Kambalière. seen ay tànk. waaw di daw rek. day daw rek amul arrêt day daw rek. mbër mu ngi noonu mu dañuy daw. day daw xalaat amul xalaat. ngeen bàyyi ko. Sonko xalaat nga Sonko amul xalaat. ndam rek ndam rek. ayca li ñu gom ndam rek mooy li ñu jàpp voilà bongo ma neex nga ca biir bongo ba ca biir bongo ba ca biir amaana lii doon na loo xamante ni luy lu bare bari la lii doon na loo xamante ni amaana du ñàkk njàngat lu rëy loo xamante ni régime bi fi nekk dinañ ko gën a am ci le leader di parti Pastef di Ousmane Sonko waaye itam amaat ko ci ñi nga xamante ni ñoo di askanu Sénégal. ci topp ki nga xamante ni topp nañu ko lan moo ko expliqué waaye itam euh, sunu xel du ñàkk mu dem ci ki nga xamante ni moo di cour suprême bi nga xamante ni ni ki suba war na addu ci recours bi nga xamante ni euh, ñi nga xamante ni moo di PDS ak itam les candidats. reculer wala boog itam désplier da yóbboon nañ ko fa ngir attaquer décret bi nga xamante ni moom la soon excellence président Macky Sall jëloon ba daal di ci jàpp élection ci datu 24 mars bi nga xam ne ci la ñu nekk ñoom PDS bokk ci ñiy sàkku ngir élection yooyee ñu gàntal ko engouement bu ni mel. mbooloo mu ni mel euh, génn gi askan bi génn est-ce que boobule décision wala boog itam boobule gis-gis est-ce que conseil constitutionnel wala boog itam cour suprême dina euh, assurer wala boog itam dina jël risque wu di wax leneen lu dul élection day am ci la 24 en tout cas li ñuy gis image la li ñuy gis lu leer la ñëpp man ci teg seen ba nga xamante ni doon na loo xamante ni askan bi wane nañu seen bëgg-bëgg mooy dem élection ci kañ le 24 mars bi nga xamante ni euh, moom la ñu dëgmal mu daanaka des rek nga xamante ni moo di fukki fan wala bëgg dem gën gaa bëri ndax campagne bi daanaka euh, léegi rek mu jeex ndax euh, ren dafa gàtt trop ndax fa ñu jàppee yi daanaka rek fekk na li nga xamante ni moo di date bi jege si lool lool lool voilà mu ngi noonu. jàmbaar jooju mu ngi gàddu ndox di séddale ci biir mbooloo mi Sonko eh, aywa. Eh. voilà. neena taxaw neena taxaw. voilà nañu ndax président dafa pare pour génn wala déet Allah voilà voilà voilà dafa mel ni dafa mel ni le leader pare na pour génn Bassirou Diomaye Faye mu ngi noonu. le candidat de parti PASTEF les patriotes moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi noonu yëkkati na ñaari loxo yi en tout cas moom Bassirou Diomaye Faye voilà candidat de coalition Diomaye président teg casquette bu blanc ci li nga xamante ni moo di euh, kaw bopp bi teg esarbu drapeau Sénégal moom Diomaye Faye yëkkati loxoom doon première fois nu Sénégal di ko teg bët ginnaaw boo xamante ni tànn nañ ko comme candidat ca loxo ba ñu ngi say seen bracelet PASTEF les patriotes moom ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye chef yëre olof bu bële moom Bassirou Diomaye yëkkati na loxo ba voilà mu ngay nuyu wanteeg askan bi mu ngi nuyu wanteeg askan bi casquette bu banaa la teg ca bopp ba voilà taxi li nga xamante ni moo di xaftaan bu bula baxa teg casquette u Diomaye président voilà première image yu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi noonu ngeen koy am fi nga xamante ni voilà voilà ñu leneen loo xamante ni seetlu nañu ko ci voilà moo di Ousmane génnul waaye ki génn moo di Bassirou Diomaye Faye le candidat lii doon luy expliqué leneen ngir euh, ñi nga xamante ni ñoo di askan bi xàmmee bu baax kan mooy seen candidat mu ngay ree moom Diomaye mu ngay nuyu wante ak askan bi voilà mu ngay joxe loxo tàllal na loxo ba moom basiiru Diomaye Diakhar Faye kaddu yi mbégte wala boog itam yëg-yëgu mbégte garde bi mu nga ne ca kaw lu mu ci mën di doon waxtu yu lay moment la ngeen koy gis ci Sunugal 24 en direct en temps ngeen koy ànd ak euh, la seen leader wala yëkkati na loxo ba voilà voilà mu nga ànd ak euh, fuul bi yëkkati na ñaari loxo yi moom Bassirou Diomaye Faye doon bis bu njëkk doon image yu njëkk yoo xamante ni am nañu ko ak Bassirou Diomaye Diakhar fay bi nga xamante ni voilà teg na ko ci dënn ba mu ngay wàccaat continuer voilà moom Bassirou Diomaye Faye voilà sécurité amaana day àndaat ak moom ca biir voilà mu ngi noonu voilà mu ngi noonu ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di image yi njëkk image yi njëkk ngeen am ko. yëg-yëg Sonko kase day daw rek amul arrêt kon yëg-yëg ngeen am ah ngeen njëkkee gis jumaa yi dañoo kontaan ba xoolal instant bi ay waay yow weer góor gi bu ko neexee yàlla na ko def trois mois trois mu ngi noonu en tout cas fii la ñu yëkk gisee ay image moom le candidat de parti PASTEF le candidat de la coalition Diomaye président moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu génn ci oto bi yëkkati ay loxoom waaye li ma doon wax sànq li ma doon expliqué sànq doon lu am solo mo voilà li lu am solo muy li daa mën a gis mooy Ousmane moo doon génn yëkkati ay loxoom waaye askan bi gisaguñu askan bi gisaguñu ba léegi Ousmane askan bi kan la ñu gis mooy Diomaye loolu di expliquer leneen muy Ousmane à cent pour cent euh, candidat bi nga xamante ni moom la tànn pare na pour lépp pare na pour lépp loo xam ne moo koy may visibilité mu taxaw ci ana ñu doon laajte Diomaye kan moo ko xam ñu doon laajte Diomaye fosul ña doon laajte Ousmane day tiim Diomaye ña doon laajte ña doon laajte image mu firndeel na wala boog tontu na lu bëree bëri ci ay doute ay question yoo xamante ni am nañu ko. eh Mamour eh Mamour yow avancé ngay rek nit. voilà ñu ngi koy safoo ñu koy bégee génn jomaay fa lay wax génn ba taalal loxo ya yëg yëg loo yëg génn jomaay génn taalal loxo yi ay waay ali mu ngi noonu am nañu mbégte bu baax a baax ci génn gi nga xamante ni président Diomaye Faye wala boog itam le candidat Euh, génn na ko ci oto boobee nga xamante ni ca nekk moom ki nga xamante ni moo di Diomaye Diakhar Faye le candidat du parti PASTEF le candidat de la coalition Euh, Diomaye 2024 wala coalition Diomaye président ndax euh, lu nu mel dañuy continuer suba dem campagne wala dañuy dallu en tout cas pétard yaa ngi tàkk pétard yaa ngi jolli élection yii moom xam naa ne li ci génnee ci ay résultats lu nekk amaana bu favorable ak euh, bile coalition dina doon lu bett ñu bare bare bare bari en mbooloo mu teko takku ku ci nekk ak na ngay wane sa mbégte ku ci nekk na ngay wanee li nga xamante ni moo sa kontante ku ci nekk na ngay wane sa cofeel ci le leader de la partie wala bëgg tam le leader de la coalition Diomaye président wala bëgg tam le candidat de la coalition Diomaye président ñu gis ay image yu njëkk moom ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax amaana ba ñu ko tànnee comme candidat ak léegi image am yi ngay gis yëpp lu amoon avant la waaye bi ñu ko dessiné comme candidat ba nii yaa ngi wala boog itam ñoo ngi doog a mën a am euh, bés wala boog itam occasion ngir mën a am image am moom us moom ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di génn ci li nga xamante ni moo di convoi bi daal di yëkkati ñaari loxo yi saafuwante ak mbooloo mi nga xamante ni gàttandu nañu ko fas yéene gunge ko delloo ji ko ci li nga xamante ni moo di këram. ku ci nekk ci ñoom amaana bañ lay jël ñaar ak ñett ñoo ñëw jël si la waaye ngir delloo ji gi askanu Sénégal daanaka ñoo génn ngir delloo ji la te askan woowee ñoo taxoon ñu jàpp la askan woowee askan woowee amaana moom Basirou bi muy yëkkati ay loxoom dafa janoo ak li nga xamante ni moo di euh, place de la nation wala boog itam stade bi nga xamante ni moo fi nekk. amaana loolu itam beneen symbole la wala boog itam leneen lay euh, visé ba tax mu dal di ko defee foofee waaye luy soriwul dara fi nga xamante ni moo di place de la nation euh, place de l' indépendance kon voilà place de l'obélisque amaana foofee la amalee li nga xamante ni moo di génnam bu njëkk ginnaaw boo xamante ni libéré nañu ko moom Bassirou Diomaye jakaar Faye bi nga xamante ni mooy candidat bu leader bu parti Pastef waaye itam nekk kandida bu coalition Euh, Diomaye président. premier nee na si te kër góor gi dina jafe lool nit xaj fa te loolee la fa bàyyi bi nga xamante ni ñu ngi fay bàyyi ko. sànq ndax lañu gis ci mbooloo ca foofa amaana lii la ñuy xalaat ndax bu ñu fa yeggee ñoom ñëpp danañu fa xaj wala boog itam oto leader yi ndax dina am fu mu jaar ba mën a dugg wala déet loolu mooy xalaat bi waaye fuul bi moom xam nañu ba baax ne mënul dem rejoindre li nga xamante ni moo di fuul ba nekk cité kër góor gi ndax xajuñu fa amaana cité kër góor gi euh, amaana namoon na fuul bu ni mel. namoon na buri bu ni mel waaye amaana delloo si waat na wala boog itam amaat na ko ndax euh, Basirou Diomaye Diakhar Faye di candidat bi Ousmane Sonko bi nga xamante ni mooy euh, euh, chef du parti wala boog tam njiital parti boobu nga xamante ni moo di Pastef doon chef de l'opposition moom itam mu ngi noonee war a ñibbi ci këram tey war a fanaani ji ci njabootam war a yegg fi nga xamante ni amaana moo di cité kër góor gi ndax dañuy jaar ci QG bi wala dañuy def direct fa nga xamante ni moo di cité kër góor gi di le 16 wala boog itam daluwaayu Ousmane Sonko wala déet lu mu ci mënti doon dina leer ndax ñu ngi ci convoi bi ànd ak yéen ngir bañ dara raw leen ci ay xibaar yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu internet en tout cas leneen loo xamante ni dinañ leen koo fàttali te doon luital lool si mooy ngeen gën a abonné bu baax a baax yow mi nga xamante ni yaa ngi ñuy topp bul hésité bul euh, xalaat ni ñu koy waxee abonné ci gaaw abonné ci gaaw abonné ci teel ci Sunugal 24 la seen leader doon seen bi nga xamante ni moo di la seen préféré doon seen bi nga xamante ni. mooy jaamu seen soxla doon seen bi nga xamante ni ni moo taxaw temm ngir faj seen i ay ajo waxtu wu nekk la seen leader ngeen di am en direct ci nga xamante ni moo di convoi bi nga xamante ni mooy gunge Ousmane Sonko ak Basirou Diomaye fay ngir ñu mën a ñibbi ci seen euh, bërëbu bopp wala boog itam ci seen euh, quartier général wala boog itam cité kër góor fan lañ ci jëm en tout cas toujours ñu ngi ànd ak yéen ba léegi ngir dara bañ leen rëcc ci li nga xamante ni moo di Euh, convoi bi nga xamante ni moo gunge ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak Jomaay Jaxaar Fay bi nga xamante ni ay weer def nañu ko ci kaso gi ginnaaw boo xamante ni ay yëngu-yëngal yu méttee métti yoo xamante ni am na ci réew mi ñu bëree bëri nangu ne amaana mën nga ne bipolarisation bu méttee métti bu ci diggante eh, état ak ñi nga xamante ni moo di Pastef am fi ba ay bakkan yu bëree bëri rot si ba ñu daal di si tas li nga xamante ni moo di parti bi fàttaliku bu baax a baax ginnaaw boo xamante ni teg nañu ko loxo ba Ousmane Sonko ca la ñu daal di def ab déclaration xam le ne parti boobee nga xamante ni moo di parti Pastef génne kon communiqué daal di xam ne tas nañu ko waaye loolu lépp ginnaaw ga ñu daal di ko yóbbu ci kaso gi mu fekk fekk nga xam ne moo di Basirou Diomaye Diakhar Faye moom Ousmane Sonko leader bu Pastef ba ñu yeggee ci li nga xamante ni moo di jamonoy parrainage ñoom Ousmane Sonko ak itam ñi mu àndal tànn ay candidat ci biir coalition bi nga xamante ni la bokkoon mu di yeewee askan bi ku ci mel ni Cheikh Tidiane Dieye ku ci mel ni ku ci mel ni gannaaw boo xamante ni sax amaana amoon nañu plan A B C ba ndax ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye ni mu amee woon euh, fils de parrainage noonu la ko amee woon moom biram Souleye Diop noonu la ko amee woon moom El Malick Ndiaye noonu la ko amee woon moom Ousmane Sonko bi ñu ko ko bañalee nag moom Ousmane Sonko ca la tànn comme candidat ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye ci solo slogan ba jibe mu di Ousmane mooy euh, Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko askan bi accepté loolee d'accord ci ba tey ji ngeen gis li nga xamante ni moo di euh, engouement wala bëgg itam doole ji nga xamante ni boobu lépp coalition am na ko ndax boo seetloo ñu bare bare bare voilà euh, voilà mu ngi noonu ba tey nga gis ñi nga xamante ñoo di askan bi bëree bëree bëri wu ci li nga xamante ni moo di boobu le programme waaye itam les leaders politiques ñoom itam ñu bëree bari daal di ñëw rejoindre li nga xamante ni moo di coalition boobule mu mel ni ci waxtu le ñu àddu ngeen di teewlu jàpp nañu ne ci wàccaayu euh, li nga xamante ni moo di élection yile euh, ki nga xamante ni moo di grande coalition bi mooy coalition Diomaye 2024 wala boog itam coalition Diomaye président mooy grande coalition amaana ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal war a jàkkaarloo en face ak ki nga xamante ni moo di Amadou Faye euh, Ba nekk ki nga xamante ni moo di le candidat de Benno Bokk Yaakaar nekk le candidat de la continuité moom Amadou Ba ca ga daanaka ñu gis ne sax campagne am am na euh, bis wala bokk itam voilà ñu ngi laajte ci ban oto la Ousmane Sonko nekk mooy bi ngeen janoon noonu ñu janoo ak moom ci la nekk le leader de la euh, coalition Diomaye 2024 waaye tam ci la nekk chef de l' opposition Ousmane Sonko voilà euh, actuellement ngeen koy am ne en direct ci Sunugal 24 point net di sàkku rek ngeen gën a abonné ànd ak ñun ci sunu ay euh, programme voilà Cheikh Bara Ndiaye moom ngeen seen nale moom itam ca ginnaaw oto bi nga xamante ni moo topp ci oto Ousmane Sonko bi ndax moom Cheikh Bara gis ngeen fan yëpp mu ngi amal ay caravane ci biir Dakar démb ngeen gis ko mu demoon ca diwaan bu Mbour voilà Serigne Mara Niass moom la nekkal ci wet ga voilà ñu teew topp ci kaw oto bi nga xamante ni moo di oto Ousmane Sonko bi ak euh, Bassirou Diomaye fay voilà di euh, firndeel euh, benn changement ci wàllu politique boo xamante ni gis nañu ko. ci ginnaaw boo xamante ni tàmm na ci làng gi moom Ousmane Sonko ndax ay jëmm yoo xamante amaana kenn daaw leen gis waaye itam nga leen di dégg ci wàllum politique waaye bi Ousmane ñëwee ci làng gi dafa indaale ñeneen ñoo xamante ni amaana ñu bees nañ ci mbir mi waaye itam feeñal itam li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg a bàyyi xel gu askan wi ñu bëree bëri am ci li nga xamante ni moo di politique gu Sénégal voilà dañuy ñëw ba egsi bi xool sëgg gis seen leader ci biir daal di yooxoo tacu mel ni ñu àndul ak seen sago di firndeel cofeel gi nga xamante ni am nañu ko ci seen leader bi nga xamante ni moo di Ousmane Sonko lan moo waral.